lañ ci àndal Ablaye ba maa ngi lay nuyu. jërëjëf euh, Aïcha Diakhaté maa ngi lay fay. ziar naa la. alhamdulilah lépp mbaa yemb na. tabaar fakal tabaar la. ñu jaar doore ko ak euh, Walf Quotidien la mu xëyee tey. Walf Quotidien lam ñu dégtal tey bokk na ci euh, Alioune Badara ndaw mi fi jiite woon CREI doonoon procureur ci yooyu la jamono dikkat na ci wàllu justice na muy doxe ci mim réew jàpp ne tamit daanaka justice bi dañ ko soofantal kenn wégatul justice su Sénégal ndax na mu bindoo ci jamono ji ba tax na Alioune euh, ba Alioune Ndao ne bu sañoon euh, ñi nga xam ne ñoo seq justice bi ubbi seen gët ngir xool naka la ñu mun a def ngir euh, jëmmalaat justice ci mim réew mu ngi ci Walf Quotidien adduna yi tamit ci troisième mandat bu njiit réew Macky Sall ne xel xalaatatu ko mu dagaan baatu askan wi ci élection présidentielle 2024. dafa mel ni sax ci loolee la Dakar Times xëy. Dakar Times xëy du ñu yeggee indépendance su justice bokk na ci magistrat yi joxe nañ ci seen xalaat professeur la ca université ba ne ca Bordeaux Alioune Badara Fall lay wuyoo yéen cabinet moo ne de jotoon na bind euh, ab téere goo xamante ne ci atum 2017 euh, ca la doon tudd justice su Sénégal bu ñu deful ndànk mun nañoo dem sax ba dootul moom boppam euh, ci réew mi mu ngi ci yéen cabinet Dakar Times. lii quotidien moom fan la génn lii quotidien Aïcha mu ngi ñuy dégtal justice ak mbirum Ousmane Sonko ak ñetteelu mu bu njiit réew Macky Sall Antoine Diome ki nga xamante ne mooy procureur ba woon Alioune Ndao joxe na ci xalaatam ne njiit réew na xam ne. mu ngi ci njeextalu mandam ci ñaareelu manda euh, gi mu amaat euh, ci euh, bopp réew mi dikkaat na tamit xamal ne na magistrat yi béy seen waar ngir justice mun a teguwaat ci tànk yamu ne woon bokk na ci bu fekkee ne Ousmane Sonko lañ ko tuumaal doon na lu wër na dem wuy ji yoon duna itamit ci Antoine joma kaddu yamu faral di yëkkati daanaka askan wi duñ ko naw ci kàddoom yooyu le li quotidien ci wàllu suuf jib na ca Dugar fukki at ngi nii askan wa ne ci jafe-jafe di sàkku seen suuf soosule ab société marocaine ga aki moo suuf sa euh, moo fa teg tànk jàpp ne ab décret présidentiel la am askan wa ne googule décret présidentiel awul ci yoon foofee ca Dougar ña ngay ñaxtu ngir jotaat seen suuf mu ngi ci li euh, quotidien mu mel ni euh, le quotidien également noonu la tëdd procureur spécial ba woon ca CREI Alioune Ndao joxe na ci xalaatam ci tolluwaay réew mi ni justice bi doxe moom la gis ne du ngëneel Antoine Diome kaddu yamu yëkkati daanaka askan wi duñ ko nawloo ñetteelu mandat njiit réew Macky bu ko kenn xalaat ndax njiit réew Macky Sall mandaam mu ngi jëm ci jeex. Mm. Eh, ci faluwaatam ci atum deux mille euh, euh, maanaam euh, vingt ba deux mille dix neuf gi ñu ne te njiit réew Macky Sall amaat ci ñaareelu mandaam deux mille vingt quatre warta doon candidat. vingt quatre heures moom fu mu génn tey. Aïcha mu ngi ñuy dektal atelier goo xamante ne waa UMS kuréel gi boot magistrat yi ñu ngi ko doon amal ngir dëppal justice justice. News bi daanaka euh, mu ngi àddu ci mbiram euh, Souleymane Téliko euh, mi jiite UMS xamle ne ne ni justice bi bindoo ci jamono ji buñ ci jógul mun nañoo dem ba dootul am crédibilité maanaam askan wi dootuñ ko mun a nawloo Alioune Ndao moom jàpp ne fu justice bi ne ci jamono ji mun nañu gis ne sax ne mu ngi ci tumuranke gu métti moom justice mu ngi ci guddi gu bër setagul mu ngi ci sukurat mu ngi ci yéenekaay bi di 24 heures. mu ngi ci yéenekaay bi ne buñ jógul euh, mun naa dem ba euh, jur jafe-jafe àdduna yi tamit ci mbirum Ousmane Sonko bu fekkee ne lañ koy tuumaal lu wér la euh, na dem wuy ji yoon na yoon def liggéeyam ci dossier Ousmane Sonko Antoine Félix Diome askan wi ñu bëri nawlu wu ñu ay kaddoom ndax na muy waxee ci jamono ji ci dossier yu bëri dossier Ousmane Sonko ak Adji Sarr coalition jot na ne bu ñu sañoon ñu amal médiation judiciaire maanaam waxtaanee loolee ngir ñu mun ko tegaat ci suuf jam ne ñooy. moom la la critiqué eh, tamit critique la mu bokk na ci justice beeg eh, moomagul boppam eh, ba tax na ñi nga xamante ne ñooy maanaam ñooñu yoon ña ngay ndëppal justice magistrat yi ñu ngi cay waxtaan ngir xool yan tànk la ñuy taxawee ngir askan wi mun a weggaat justice ci mim réew mu ngi ci critique les échos borom ñaari titres yi fan la génn mangoog ñaari yi titre bu njëkk bi indépendance ak crédibilité bu justice moom la xëyee tey bokk na ci justice ma ñu joxoñ baaraamu tuuma ne tëddeetul njaaxaanaay Souleymane Teliko joxe na ci xalaatam Aliou Ndao itamit jàpp ne eh, fow ñu fexe ba kenn ku nekk mun a jox gëdd ak cër ga ca war a justice eh, yéen kaa bi na ci beneen titre goo xamante ne eh, Diary Sow yaa ngi koy fàttaliku Aïcha mhm. Diary Sow ma réeroon ca Paris ba noonee muy feeñaat dellu soit ci mim réew Diary Sow moomee àdduna ci lu bari daanaka réer gamu réeroon sax doonul loo xamante ne Eh, da ce am naqar eh, ak itamit lam cay rëccu moom mm-hmm. soxna si dikkaat na eh, ne dina jël xalimaam bind lu bari ci loo xamante ne gis na ko ci mim réew rawatina ñu koy teg jigéen ñi ci seen ndodd say su ne. ñu waxtaanee Sud Quotidien mu ngi ñuy tegtal UMS ak état de droit indépendance su justice système beeg na mu bindoo ba tax na justice boobee sax moom lañu ñu taxawal ca tribunal ngir xool naka lañ koy atte Souleymane Teliko joxe na ci xalaatam magistrat magistrat yi tamit eh, joxe si eh, xalaat Alioune gis ne bu ñu demee ba justice bi néew doole musiba la ci mim réew mu ngi ci yéene kaay bi di eh, Sud Quotidien. Turbine yéene kaay. Turbine mu ngi ñuy dégtal débat gu jëm ci wàllu indépendance su justice nees mun a def ngir justice bi mun a tëddee njaxanaay moom boppam jor ngi ñu denk wàllu yoon mel na ni nag ma ngay woy di kañ ni justice tëddee ci mim réew Alioune Tine moom gisewu ni sañu ta tàccu ndax dafa gis ne justice bi daanaka mu ngi ci ndëgg sërëx def magistrat yi ñoom ña ngay jooy ni justice bindoo ci mim réew bu ñu sukkandikoo ci Souleymane euh, Téliko le mandat moom fël feneen libération wala boog liberté provisoire euh, gamu am moom Guy Marius Sagna terewul fa mu tegoon tànkam digganteem ak nguur gi ba léegi euh, teggeegu ko yekk na lu mel ne xeme nguurub Macky Sall ci tegum loxo ga muy def ci askan wi di leen yóbbu ndungu sim ci anam yu dëppoowul yoon l'évidence ne kii di Idrissa bi tekki njiit réew Macky Sall ñu bëri nag ña ngay jóge ci partem di parti réew mi di transhumé e feneen mu ngi ci e, l'évidence ci xëtëm. ñu e, dem ci direct news. direct news xëy waxtaan ak Djibril waar bu APR adduna ci mbirum Adji Sarr ak Ousmane Sonko la xewoon ca suite boote bokk na ci yekk na lu mel ne xamee njiital Pastef mi mu ne jotoon na sax dossier bañ a yegg si fii ndax wartoon yëfit na ci mim réew waroon na dem wuy ji yoon moom Djibril War gis ne gis nañ Wade ak maître Abdoulaye Wade ak euh, kii di Khalifa Sall ñeneen ñeneen kenn ku nekk dafa dem wuy ji yoon ca lañ ko doon tuumal ana lu tax Ousmane Sonko bëgg a mbubboo askan wi euh, ba euh, gëlëmal ñu bari ci dossier us ci dossier gañ koy tuumal jëm ci aji Sarr ma yëkkati kaddu tuuma teg ko ci ndoddu njiital Pastef. ñu waxtaanee l'observateur l'observateur fitna gi tàmbalee jolli ci mim réew Sénégal kenn xàmmeetu ko boobu léegi yéen cabinet bu ñu defoon ndànk mun naa dem ba uppi loxo ndax li tàmbalee xeeñ neexul benn yoon euh, kii di professeur Cheikh Ibrahima Niang socio anthropologue adduna ci jàpp ne li tàmbalee xew ci réew mi ak politique bi na mu demee mun naa dem ba jur euh, musiba ci réew mi bokk na ci lañu ñu doon séntuloon ci réew mi moo tàmbalee xew ci jamono ji l'observateur ne euh, Sénégal ngoog ak fitna ak daanaka naqar ak tiis ak tiitaange. réew mi quotidien réew mi yéen kay des Cap Manuel kaso googeek la fa xew ci business euh, moom la Guy mari Sagna xëy teg ci taabal gi euh, yéen a kaabi jox kàddu Boubacar Sène njiital Horizon sans frontières wax na la mu dund ca kaso ba jabet ga mu dund ak opération ga mu jot a def Eh, ma ngay yeggee xalaatam ci réew mi quotidien mbirum Ousmane Sonko eh, Biram Souley Diop ak Abbas eh, ñoom ñaar am nañu bàyyi bu négandiku ñibbiwaat nañu seen kër. Libération Ousmane Touré amagul liberté teg nañ ko loxo ci mbirum GP waa jooje teg nañ ko loxo ca Maroc yéen cabinet dorog gamu yóbbante tax ñu teg ko loxo diggante Dakar ak Nouakchott jëm ci pont bu Rosso yéen cabinet di moom la xëyee. enquête moom lan la enquête moom ne askanu Sénégal bëgg nañu yoon moom boppam indépendance su justice la ñuy sàkku ci jamono ji magistrat yaa ngi cay waxtaan ndëpp la goo xamante ne ñu ngi ko jagleel wala yoon mu ngi ci enquête. Le Soleil yéen i Aïcha mu ngi ñuy tegtal signature goo xamante ne amal nañ ko démb contrat gu dox ci diggante réew mu Sénégal ak euh, Mauritanie jëm ci ndorteel liggéeyum pont bu Rosso ni ki euh, juin 2021 lay doon njëg ma nag xayma nañ ko toll na ci juróom fukki milliards toftal juróom ak euh, yu teg mu ngi ci yéen yéenekaay bi di Le Soleil. témoin yéenekaay yi. Le témoin mu ñuy tegtal lu aju ci euh, fitna gi woon ci Ndakaaru ak lañ fi jot a yàq ci ay supermarché ak yeneen ak yeneen ana lu tax euh, ñu bàyyi fii Paris Fouti euh, yéenekaay bi di Le témoin moom la bëgg a xam tey Aïcha Diakhaté ci xëtam bu njëkk. mu me ni ñu dem ci xët yi tàggat yaram yi stade yéenekaay. éliminatoire CAN 2022 Sénégal Congo bu 16h jotee lay doon daa mel ni nag Sénégal a ngi weel ndam ya nga xamante ne mu ngi koy tàmbale am. Mhm. wàccaayu coupe d'Afrique des nations 2022. jeexalee ko ko sunu lomb. Ama Baldé doomu Pikine la xëy dalal bëgg naa daan Modou daanaka am na xel mu dal eh, ngir fexe ba toog ci si lamb ji doon roi des arènes bu jogee ci combat gi war a dox digganteem ak Modou Lo moom Ama Baldé ay kàddoom ci yéen a bi di suñu lamb yema fu ñu jeexalee eh, tënk yéen a kaay incha allah daañu leen ko faram-fàcceel eh, ci xibaaru digg bëccëg beeg Omar Bun Xataab Guèye. moo ñu koy yëggee moo ñu koy yëggee incha allah